Le journal de la Fayda. journal de la Fayda. journal de la Fayda. vous écoutez le journal de la Fayda. yéen a ngi déglu seen journal de la Fayda. Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane juróom-ñetti waxtu jot na ba tekk fanweeri simili ca Medina Baye tey la dibee juróom-benni fan ci weeru novembre atum 2022 yéen a ngi ci seen fukk ak benneeli tomb ci seen yéenekaay bi le journal de la Fayda asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di am yéene digte leen li gën a fas ci seen yéenekaay bi di journal euh, de la fayda dal leen ak jàmm ñu tàmbalee ko ak bopp xibaar yi seen yéenekaay bi ci xatam mu njëkk dikk nañu ak Cheikh Ahmad Tidiane Aliou Cissé mi sagal Medina Baye sagal Kaolack sagal Sénégal ak Afrique ba tey ci xët mu njëkk ma seen yéenekaay bi mi ngi fàttali ay kàddu yu Cheikh Mariama Niass ci gis-gis bi mu amoon ci yàqute jikko yi ak ci wàllu parité ba ci xët mu njëkk ma seen yéenekaay bi dikkal nañu ci yenn ci ay melo ak jikko yu Ibrahima doomi Alxaaji Abdoulaye Niass al Kabir ca ñaareelu xatam dikkal nit ñi ak taxawaay ci taxawaay ak gis-gisu Cheikh Ibrahima Niass ci wàllu politique ci jamono bi tubaab bi tegee loxo Afrique ba tey ci ñaareelu xatam dikkal nañ ci taxawaayu soldaaru Baye Niass bi ca banlieue bu Dakar muy Cheikh Aziz Ndiaye ñu jeexale ko ak xët ak ñetteelu xët ma Ah, seen yéenekaay bi di ñu wanale ak sos saqu mbaay ña semu ci waxtu jot na ba teg fanweeri simili ca Medina Baye tey la dibee juróom benn fan ci weeru novembre atum 2022 yéen a ngi ci seen fukk ak benneelu tomb ci seen yéenekaay bi la na lépp bàyye na lépp bàyye na lépp bàyye yaa bàyyi ñasi yaa bàyyi ñasi yaa ñu tàmbalee ko ak xët mu njëkk ma imaamu jumaa ju mag ca Medina Baye tàbb nañu ko ah, mu bokk ca juróomi téeméeri jullit yi gën a ràññeeku ci àddina si Euh, nit ku jullite nit ku am taxawaaye nit ku taxawu lislaam ak faydu tijaan diplomate bu mag bu Sénégal ci digganteem ak réewi jullit yi Cheikh Ahmad Tidiane Aliou Cissé nit ku sagal Sénégal ak Afrique at mu nekk dañuy def ab tànn ngir tabbu juróomi téeméeri jullit yi gën a ràññeeku ci àddina si mu nekk tànneefu gu jafe-jafe waaye nemmeeku nañu ne at mu nekk surtout Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass bi daf ci bokk ak ku mel ne uh, roi Maroc Mohamed Sisa ak président Erdogan ak yeneen taalibe Baye Niass yu dëkk ci Nigéria ak ca Soudan waaye ren tabu nañu ko mu bokk ci juróom fukk yi ci gën a fës. Euh, moom sax lañu ñu jox ñaar ko ak ñeenteelu place ba imam Cheikh Ahmad Tidiane Aliou Cissé umma islamique bi yëpp dañoo soxla bu baax ay ndigalam loolu moo loolu sabab la ci mu bokk ci juróom fukki julli di gën a fës ci àdduna si Euh, te moom rek moo ci kilifa diine gu dëkk ci Afrique te loolu kat 2019 ba léegi at mu nekk noonu lay demee ci pàttali ca atuma 2001 imaam Cheikh Ahmad Tidiane Aliou Cissé taboon nañu ko ci Sénégal commissaire général ci wàllu aj gi ca atuma 2006 président Abdoulaye Wade dellu tabaat ko mu nekk ambassadeur des missions spéciales sénégalais jot na ci jot na it prix Sénégal bu am solo. Euh, bii di ordre de mérite ca atum 1993. nañu ci xatam mu njëkk ma di ñu fàttaliku yenn ci kàdduy Cheikh Mariama Niass ci yàqute jikko yi ak ci wàllu parité di ñu ko laajee euh, lan moo sabab yàqute jikko yi lii la tontu nee na li am mooy jikko yi yàqu nañu yëpp la ñu senegal Sénégal dafa soppeeku ba gëm-gëm bu ñëw rek mu bàyyee bàyyeekook boppam lu fi amoon lu fi amul woon rek moo fi moom mu nga fi gis léegi nit ñi di reyante càcc gi mel ne tulleeg mali ñàkk wax dëgg te duñu ci ragal dara nee na waa Sénégal meluñu woon noonu waaye maa ngi sàkku ci way jur yi ñu xeex di ngir ñu xeex ba am ndam ci seen yarup doom yi maa ngi waxite jigéen ñi ñu dellu ci yàlla te xam ne lu jiitu lislaam di wàcc doonuñu woon dara ku ci juddu waan dañ la daan rey bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ci la mbir yépp soppeeku ndax yàlla wàccee wàcce na ab ay ci loolu léegi jigéen na jot na ay àqam ak yelleefam fii mu toll nii am nañu am mën nañu teel a jàng a nekk ay ingénieur nekk it ay kilifa yu mag cheikh mariama ñas nee na bàyyam cheikh al islam cheikh ibrahima ñas daan na wax doomam yu jigéen ñi ne dee leen rëjëjloo ak góor ñi ci xam-xama te bañ a ittiwoo mbiri àddina yi nga xam ne ay njunux rekk lañu ñu delloo laaj ko luy xalaatam ci parité nee na moom ma àndul benn yoon ci ñuy wute yemale góor ak jigéen ndax yàlla waxeewul ko noonu yàlla dafa wax ne góor moo féete kowu jigéen loolu tekkiwul ne góor moo gën jigéen waaye loolu ak cër la rekk yàlla àtte na mbir yi ca aadama ak awa te dafa mosa wax ne Eh, jigéen benn góor ñaar kon na leen mosa dikkal nañu ci xatam mu njëkk ma di ñuy wan yenn ci ay melo ak jikkoy Ibrahima doomi alxaji Abdoulaye Niass Al Kabir moom la ñu tuddee université Sine Saloum sëriñ bi dafa làmboo woon ay jikko yu tedd yuy firndeel mat gi nekk ci moom dafa do dafa doon jëflante ak ay kilifa yu nekk ci réew yi fasanti ko daawul waxalu du loo gënee la boole ko ak tabe Ah, dafa nekkoon na ku ñeme dégg ba noppi xol bi fees la ak ragal yàlla daan na wax ne bët bi may xool doomu aadama jomb na ma koy bañ ku ñàkkoon jot la ndax bari ay itte amul woon na benn waxtu ngir noflaayu am na bés mu wax kenn ci doomam yi ne ko àdduna bi bul ci jox noflaaye benn cër ndax amul fii moom moo doon. imam biy xutba di jiite jumaa ji mbooleem waxtu yi di jàngalekat bu mag nekk àttekat bu jub tey jubal nekk waaraatekat buy dundal xol yi nekk yara yarekat ah, di defarkat ci maqaama yu kawe ya di yóbbu nit ñi ci seen boroom nekk kàngam boo xam ne xam-xamam dafa sell te leer mu nekk it ku saxoo woon jàng alxuraan ndax daan jàng kaamil bi ci xool ak ci tari ayu bés bu nekk ku itte woon xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ba daan na wax naa na sama bëgg-bëgg mooy omat omat xeet wi ba jébbal leen seen boroom nga xam ne dootuñu bëggati euh, ku dul moom yàlla subhaanahu wa taala dafa bëggoon ay taalibe ma ëmbal leen yërmande ak teraanga loolu moo tax taalibe yi taxoo woon ak moom euh, jébbal ko seen bopp euh, am na shérifu gànnaara bu tudd al uqtu uldu Muhammad Baaba bind na ci moom ay bay di wax naan man may jaamu Cheikh Ibrahima su bëggee na ma jaay su bëggee eh, na ma def lu ko soppa ndax jox na ma ay daraja yoo xam ne eh, moom na asgor eh, ku wóolu woon yàlla la di toroxlu bu ko doon ñaan na ànd ak loolu mi ngi am jagle ci moom subhaanahu wa taala daana dan daan wax ne yàlla jox na ma xam-xam ak kàttan kàttanal wëlbati mbir yi su ma waxee mu am rekk mu am Ah, te loolu ñu bëri bi ñu jotee maqaama moomu jëfandikoo nañu ko waaye man ma doyloo yàlla ah, ndax nekkuma ci ndigalu yàlla rekk laay wéy ah, ci loolu la ma jëlee tànn ma ma nekk xaritam Euh, mu nekk ku nooy nekk ku dal nekk ku teey ëmbalutoon dara ay noona kat bi dikkal nañu ci ñaareelu xëtam ak taxawaay ak gis-gisu Baye Niass ci wàllu politique ci jamono yi tubaab bi tege woon loxo Afrique relation ak taxawaay bi cheikh al islam amoon ak kilifaayu politique yi ci àddina bi lettre yi muy yi mu doon bindante ak ñoom doy nañu ci firnde ci yooyule bataaxal da nga fa fekk yu Moxtaar Uldu Euh, du Dada mi njëkk nekk président de la république islamique bu Mauritanie nga xam ne yàgg na jokkoo ak moom di ko xamal ne gis na Mauritanie bokk ci réew yi moom seen bopp ni Maroc ba dugg ci Ligue arabe bàyyi bind na ko di ko xamal ne euh, moom ku yàgg fexe la man ku yàgg fexe la euh, ngir lëkkale Maroc ak Mauritanie te Kwame Nkrumah mën na ma seede ci loolu man xam naa ne seen ñaari réew yi am ngeen jafe-jafe. am ngeen ay jafe-jafe waaye li am mooy jafe-jafe bu nekk am na saafara bind na it ab lettre jëmee ko ci Jamal Abdel Nasser rais bu Égypte bi mu bëggee tabax barrage euh, ci bi mu bëggee tabax ab barrage ci la Union soviétique ngir rek nga wane moom cheikh moom Mawlana cheikh al islam xeex gi mu doon xeexal Afrique boobule mébét nga xam ne euh, jubuwutoon Israël. Euh, mu lëkkaloo woon ak Grande-Bretagne ak France di leen boom euh, Nations Unies daal di daje euh, fan bu njëkk ci weeru novembre atum 1956 ca ëllëg si di ñaareelu fan ba ñu jox ndigal Israël ngir mu dakkal xeex ba ca ñetteelu fan ba Israël la bàyyi waaye waa France ak waa Grande-Bretagne ñoom ñuy wéyal xeex ba ba juróomi fan ci weeru novembre soldats yi français tegaat loxo ca Port Saïd. Euh, jëmale ji nag canal bu Suez nga xam ne foofa lañu doon tabax barrage ba waaye àddina bi yëpp euh, wan leen jox leen ginnaaw Amérique ak Union soviétique dal ci se ci kaw France ak Grande-Bretagne wax leen nañu dakkal xeex bi Cheikh Ibrahima Niass jàpp ne Jamal Abdel Nasser moo am ndam mu dal di jël xalimbaam binde ko lettre di ko ndokkee la ak ñaanal ca lettre ba wax na ca lii nee na noon yi bari nañu. te bu junni di tabax kenn di tocc dana jafe lool ñu taxawal dara rawatina nag bu kenn di tabax dikkal nañu ci taxawaayu soldaaru baay bi ni ca banlieue bu Dakar muy Cheikh Aziz Ndiaye ci lislaam booy julli da ngay wax da ngay tàmbalee allahu akbar jeexale ko ak asalaamu aleykum Cheikh Ibrahima Niass nee na loolu li muy tegtale mooy ne jullit yi dañu leen a sant ñuy sabbal seen borom ak a fexe mucc ci safara waaye musal ci bépp jul bépp jaamab yàlla lii mooy sukkandikukaayu Cheikh Aziz Ndiaye soldaaru Baay Ñas ba ca banlieue bu Dakar Cheikh Aziz Ndiaye ndaw lu farlu ndaw lu jàmbaar fexe na ba jéggi mboole mi gàllankoor ak jafe-jafe ba taxawal fay faydu tijaani ca banlieue bu dakaar Cheikh Aziz Ndiaye bokk na ci muqaddam yi gën a ràññeeku am toppam ci àdduna bi mën nañu leen a wàññi ci ay junne bu ñu sukkandikoo ci faydu akti ah, Cheikh Aziz Ndiaye mi ngi yëngu ci wàllu yara ak tabaxaat ak tuubalaata ay ndaw yu demee ni borom ñaari tur ak ñi mel ni ñoom ak ay defkatu ñaawte fa jaaree ko ci faydu tijaani ak topp tànki sëriñam Maulana Cheikh al Islam mi nga xam ne dafa jàpp ne mooy xat mi Ah, seen yéenekaay bi mi ngi wane lekk ki sos sàqum Baay Ñas muy Cheikh Abdoulaye Wilane Cheikh Abdoulaye Wilane nekkoon na muqaddamu Baay bu mag mi ngi juddu ca atum 1944 ca eh, ndugu benn ndugu benn ab dëkk la bu nekk ca bëj gànnaar jàpp sowu Kaffrine mi ngi soqe ko ci wayjur yu tedd yu ñu jox cër ca boobule gox maam Ali Wilane ñu gën koo xam ci Ali Fatou mooy baayam maam soxna ndaw ñu gën koo xam ci soxna Euh, boode mooy yaayam ca atum 1951 la tàmbali njàngum alxuraan ca kër baay taxam baaba wilaan moom moo nekkoon it sëriñ daaraam gannaaw ga la dem ca nijaayam alxaaji aliw ndaw ca nguy euh, dëkk la bu nekk ca bëj gànnaaru Kaffrine ngir wéyal fa am njàngam jàll na it kër saaweli moom it ma nga ca bëj gànnaaru Kaffrine ca atum 1965 la demoon na nga yenn foofa la daje ak alaaji Omar Diop mu dimbali ko ba mu mottali ma foofa sax la jànge lu bari ci lislaam ci atum wala la Cheikh Abdoulaye Wilane bawoo nga yenn ngir dem Ndar foofa nag la xóotalee am njàngam sax na fa Ndar ñaari at di fa jàngale ci atum 1971 mu ñibbisi Saaluma ca dëkk bu ñuy wax ba Ngudiba Ngudiba digganteem ak Kaffrine mi ngi toll ci juróom benn kilomètre foofu la daje ak sëriñ daara bu Topp ñu taxawal ab association religieuse boo xam ne Cheikh Abdoulaye Wilane jàngale na fa caatu 1977 la jënd këram ca Kaffrine ngir dëkk fa waaye E ngir wéyal la am njàngaleem yàlla ubbil ko fa beneen buntu mairie bu na jox ko lu toll ci ñaar téeméeri pàkk ngir mu dëkkal ci taalibe yi ca atum 1980 bi Serigne Daara Babou Top demee ah, Cheikh Abdoulaye Wilane dafa wéyal njàngale ma ca atum 1987 mu ñu soppi ah, turu association ba tuddee ko association pour la promotion des sciences islamiques ca atum la ko ministère de l'intérieur jox récépissé association boobule ci numéro bi nga xamante ni mooy 5973 di 9 février 1989 ci atum 1986 la jamia bi tàmbali woon di law ci Sénégal ak Gambie Cheikh Abdoulaye Wilane dundam gi yëpp mi ngi ko ajoon ci xitma la Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass ci loolu sax la taxawalee Saxam Baye Niass nga xam ne. Euh, mi nga ko tàmbali woon ci weeru septembre atum 2002 ca at mooma dajale woon juróom-benni tonni dugub loolu dañu la di wéy euh, ba ren nga xam ne xalifaam Cheikh bàyyi Awale dajale na lu toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti tonn yu toftal juróomi barigo ñu def ko ci euh, junne ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeenti saako séddale ko ci ñetti téeméer ak ñetti kër ca Medina Baye Kaolack Cheikh Abdoulaye Wilane na ko xamoon fo bàyyi ñas sa tegoon na xam-xam la moo waral la mu samp juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróomi école téeméer ya ak juróom ña nga ca Gambie juróom-ñeent fukk ya ak ñaara ña nga ca Guinée Conakry yi juróomi ak ñaar ak juróom-ñett yi ñu ngi fii ci réewum Sénégal ko xamoon na it ne taalibe yi dañoo mar ci wàllu maxrifa lañu ba tax na dafa daan wër di leen fekki. Euh, ak di leen takkee sëriñ bi amul woon na benn noflaay ndax daayira yëpp benn bu ci nekk amoon na gàmmu boppam ci at mi te gàmm gu nekk daf ca daan teew euh, moo xam ci biir réew mi wala bitim réew ci ay gàmm moom daan na waxtaanee jaar-jaar ak dundi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam doon na waxtaanee awliyaa yi doon na waxtaan ci jaar-jaar ak dundu sëriñam Mawlana Cheikh al Islam Cheikh Abdoulaye yeggoon na ci niveau intellectuel boo xam ne kenn mënul ko woon a natt ndax ci jumtukaay yi xarala yi doon na ci jël misaal di sayru ay taalibeem ba yéega leen fu kowe ci mahrifatu billahi Cheikh Abdou Barham doktooru xol yi noonu la ko taalibe yi doon wooye ndax toj na xol yi génne ci mboolee mesik dugal ci mbëggeel gu dëggu ci yàlla ci guddik fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre atum 2020 ba ñaari waxtu jotee ba teg fanweeri simili ci la cheikh abdoulaye wilane abdou barham mi sosoon sàqom Baye Niass mi làqoo ca hôpital régional bu Kaffrine ñu ngi ko jébbaloon boromam Euh, alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2020 euh, gannaaw ba ñu ko ba ñu julee tàkkusaan ca penku jumaa ju mag jamu tabax ca Medina Baye Kaffrine Cheikh Abdoulaye Wilane yal na yàlla yokk leeram te taas ñi ci barkeem yal na yàlla teg loxo ci njabootam loolu li mooy li gënoon a fas ci seen yéenekaay bi di seen journal de la fayda ki leen ko doon digtal di seen mbokk Cheikh Ahmad Tidiane bi tey Ah, di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla na yàlla na yàlla may ñu ko mu lewtu yaatu woo xamante ni dañ ci liggéeyal Mawlana Cheikh al Islam yàlla may ñu gën mën di bàyyi ak mbëggeelam ci. dooleeku liggéey pour taxaw liggéey pour wone ne mën nga dara mën ngaa yokk dara loolu moo tax a jóg fond ko defee yokk googu nag feeñ waaye ñu bëri nañ ah am na lu mu loo xam ne gis nañ ko.